Euh, baaxoo na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu ne ci ndigalul sëñ bi nu dikk ci rajo bi yéene fi wax ne nañ séentu weer wi te lu ci waaye xam nga yëgle ko buñ ko defee ba noppi ne dinañ génn nag ci sow di séentu weer wi ak daanan xibaar yi ci gox yi bi ñu ko defee nag ba waxtu wi jot nga xam ne euh, ñi ngi waaj a noddugee jokkoon nañ nag kër euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha yëgal ko fi ñu toll ak li xew mu ne kon nag ginnaaw jekk ba nëgën yi ba gee jot na te gisuñ fe gisuñ weer yu fenn dal kon mën naa niñ sukkandiku ci loolu ne weer ne weer yu feeñut kon nga xam ne gaaw mooy doon benn fan suba ci ajjuma ji day mottali weer wi kon nag na ko ñëpp ñëpp xam-xam ne weer weer yu feeñut ñu sant nag mboolem rajo yi fi teew yëpp yëpp yëpp rawatina waa ECAB ak e, e, rajo yi nekk waaw ak Lamp ak ak rajo yi fi toog teew yëpp ñu ngi e, sant bu baax a baax a baax tey sant waa Muxaddamatul Xidma bu baax a baax a baax. ak euh, sëñ euh, sëñ Bachir Abdou Khoudous moom it ko ko farlu ci jëf yi moom mooy jokkoo waati waa Tiwaawan sax waaw ñu xam loolu bu baax tey tey kon nag weer wi ñu doon séntu moom feeñut ñu xam <coughs> suba mooy doon fan weeral bi ginnaaw suba di gaaw di benn fanu euh, rakki gàmm gi waaw na ko ñëkk ñëpp xam rabi muy rabi Mustaani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, imam Abdou Diop mi nga xam ne nii moom moo jiite lii di commission bi gannaaw bu mu déclaré ne nañu seenu weer wi ci ndigalal sëriñ bi lu ci waaye xam mu jottali ko gannaaw bu mu jokkoo ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy këru diine yi nekk ci réew mi waaye mbooleem ñi nga xam ne ñoo représenté euh, sëriñ bi ci gox goxaan yi euh, jokkoo ak waa kër sëriñ bi nag sëriñ bi joxe ndigal ci ne gannaaw bu ñu ko séenoo ci réew mi yëpp gannaaw bu ñu jokkoo ak ñi nga xam ne war na nañu jokkoo ak ñoom te dem nañ ba gee jot na te amuñu dara lu leer kon weer wi feeñul dañuy mottali fanweeri fan yi ci àjjuma ji incha allah gaaw mooy benn fan ci rakki gàmm kon na ko ñëpp xam te ku ko lu ci waay xamit mu jottali ko moroom jërë ngeen jëf